siyaara ji nga xam ne mën ngeen koo tuddee siyaaratul sukri te yàlla wax na ne wa qalilun min ibadiya shakur ñuy sant ñu néew lañ te yàlla wax na ne ñuy sant ñu néew lañu sant gi ci boppam it ña koy sant sant gi it la sant gi koy sant sant ga lu néew la mu ne qalilan ma tashkurun ñun santkat yi sant bu néew lañ sant waaye daal ñu néew ñooy ñuy sant mu ne ñun santkat yi lu néew la ñuy sant waaye ñu néew nag ñooy sant far waaye wax na ne dana galam diggante jaam yi ak sant Iblis wax na ne dinay galal jaam yi diggante seen digganteek ak sant te yàlla dana fekk ñu bari duñ nekk ay santkat. te yàlla dana fekk ñu bari loolu tax duñ nekk ay santkat. na ngeen bu ngeen sante na ngeen sant bi. kon nag yéen bu ngeen santee bàyyi ne na ngeen santaat. alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin. yàlla li ñu njëkk a digal ci téere bi. yàlla li ñu njëkk a digal ci téere bi. mu ngi lay wax alhamdulilah. mu ngi lay wax alhamdulilah. andak nak nag rabbil alamin andak nak nag di rabbil alamin moo mom ñep waye ñep santu moo mom ñep waye ñep santu andak moy rahmanir rahim andak moy mooy rahim yermandeem ci adina ñep jot nañ ci yermandeem ci adina bii ñep jot nañ ci alaxira ci mom rek lañu yaakar yermande alaxira itam ci mom rek lañu yaakaré yermande waye tere ñu ko santu ñu ñoom waaye teewut ñu ko sant ñu néew lañu. taw bi du ci seen taw seen tool yi rek la doon taw. taw bii doon taw dowul na ci seen tool yi rek la doon taw. te taw boo amee am na lu tax. te taw waxtu waxanee am na lu tax. wala am na ku tax wala am na ñu tax. wala nga xam ne boog am na ku tax mu taw mbaa mu xam ñu tax mu taw. waaye nag ñëpp lay tawal. waaye kat du tere ñëpp lay tawal. yéen yi rek duhut yéen ñii rek itam kon yéen su ngeen jógee di sant yàlla kon nag bàyyi ne bu ngeen jógee yéen di sant yàlla yéen a ngi santal ñu ñu tawlu ñëpp yéen a ngi santal mboolem ñu doon tawlu ñëpp sant leen yàlla bàyyi ne sant leen ak sama mi ak bu bu ko waxi yàlla fu muy mën a xamee daxal bu ko wóor dëng mu baxee koo ci waxi yàlla ne man ak yéen aljanna lañ jëm mu ne moom ak ñun aljanna lañ jëm man ak yéen ñi texe la ñi texe la ñuy doon moom ak ñun la ñuy doon yàlla yàlla tontu ma ci bopp alquran mu ne nag bi mu xalaatee loolu yàlla daal di koy tontu ci bopp alquran téere bi nga xam ne amul sikk ne ci yàlla la jógee téere boobu nga xam ne amul gënn sikk ne ci yàlla la taxee ko di jubal ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla di jubal ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla ragal yàlla di loo xam ne ci xol la nekk ragal yàlla di loo xam ne ci xol lay nekk te man janoo rek laa bëgg te bàyyi moom janoo rek la bëgg ci liñ bëgg fan laa jële ne ñun aljana lañ jëm mu ne kon nag ana fan la jëlee ne ñun ak moom xal jàlla lañ jëm fan laa jëlee ne ñun dañuy taxe ana fan la jëlee ne ñun dañuy taxe yàlla ne ñi nga xam ne gëm nañu faddu mu ne yàlla ne ñi nga xam ne gëm nañ faddu ñun ñëpp gëm nañu àllaaxira ñun ñëpp kat gëm nañ àllaaxira gëm nañu dekki gëm nañ dekki gëm nañ hisaab gëm nañ hisaab gëm nañ siraat gëm nañ siraat gëm nañ aljanna ak safara gëm nañ aljanna ak safara te loolu lu faddu la te loolu lépp lu faddu la ñu. mu ñuy taxawal julli. mu teg tekkee ne ñuy taxawal julli. te gis bàyyi ne mu gis ñun ñëpp ñu di ay julli kat. mu ne ñi nga xam ne danañ dundale ci seen alal. mu ne ñu nga mu tekkee ne ñi nga xam ne danañuy dundale ci seen alal. yéen ñëpp ku ne am na suufam tey joxe ko ngir yàlla. bàyyi ne ñun ñëpp gis nañu ku nekk am nga sa suuf joxe nga ko ngir yàlla. ñu gëm li ñu wàcce ci yonent bi. ñi gëm li ñu wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amul sikki sàkka ci gëm alxuraan yi amul sikk ñun ci gëm alxuraan gëm téere yi ko jëkkoon gëm téere yi ko njëkkoon li ñu alxuraan solo lépp loo xam ne alxuraan moo ñu ko solo ne ci téere ñun gëm nañ ne mos nañ koo wàcce ci téere ñun gëm nañ loola yàlla ne boole nañ yooyu ma na tekki nga xam ne boole nañ yooyu mu wax te ñun boole nañ ko ni ñu ko gisee bàyyi ñooñaa ngi ci njub. mu ne ñooñaa ngi ci njub. te ñooñu ñooy texe. te ñooñu ñooy texe. laay jooju gàddul nañu aljanna ñun. bàyyi na laay jooju gàddul nañu ñun aljanna. mu tontu ma ci beneen laaya. mu dellu ko tontu ci beneen laaya. man alquran ma jàngal mu ne moom alquran rek moo koy jàngal alquran. maanaam alquran ma koy firil alquran. mu mu ne. jox na téere bi. mu ne jox na téere bi. ñam tànn ci jaamam. ñam tànn ci ay jaamam. am na ci ñoo xam ne dañuy tooñ seen bakkan. am na ci ñoo xam ne dañuy tooñ seen bakkan. am na ñoo xam ne dañoo digg doomu. am na ñoo xam ne dañoo digg doomu. am na ñoo xam ne dañoo jiitu. am na ñoo xam ne dañoo jiitu. bon nag jox ñu leen jox téere ñoom ñetti kuréel yooyu baax ak yàlla garab la. kon nag jox jox téere boobu ñoom ñetti kuréel ñooñu leen. baaxal yàlla gi rek la. lu mu ca teg ne aljannaay sax ñoo yëngu ñu daañu ko faral. mu ne lu ca teg ñoom aljannaay sax. ca la ñu jëm. ca la ñu jëm. jooju laay wax nañu ne aljanna wax nañu itam ne aljanna lañ jëm alhamdulilah. siyaara ñëw ngeen di siyaara. ñëw ngeen di siyaara. siyaara bi du man maa ko moom. bii. bàyyi meer duhut ne moo ko moom. man xam naa ne ci yàlla rek ngeen jëm. moom xam na kenn ne yéen yàlla rek ci ngeen jëm. du ma yàlla waaye yàlla ngeen di wut ci man. mu ne moom du yàlla na ne waaye yàlla ngeen di wut ci moom. te li koy tegtal. liy tegtal na ci loolu. siyaara ngeen si daaw fekkee wu ko siyaara ngeen si daaw jéeg fekkee wu ko daawaati jéeg fekkee wu ko. siyaara ngeen si daaw fekkee wu ko ngeen siyaara si daaw jéeg fekkee wu ko. daawaati géej dikki ngeen siyaara bi tëkkiwu ko bu fekkoon ci man ngeen jëm bu ngeen ma fu fekkoon ngeen di wàññeeku kon mu ne xamee na ci ni su fekkoon ne moom moo leen di tax a jóg ci moom ngeen di jëm su ngeen ko lu tëkkut wàññeeku waaye ka ngeen fi doon fekk si waaye ka ngeen fi doon fekkte moo leen tax a jóg bu fi bàyyi nekkut yàlla na fi nekk bi ngeen ma fi fekkee itam kookale nag yàlla na fi nekk bi fi bàyyi bi ñu nekkee itam sax yàlla na fi gën a nekk wala sax yàlla na fi gën a nekk gën la nekk ci barab ci barab yàlla gën la nekk ci barab ci barab waaye ay tëjëleem dana gën a feeñ ci ci ay feeñ waay ci ay feeñ waay waaye ay tëjëleem dinay gën a feeñ ci ay feeñ waay benn murid benn murid mos naa àgg ci yàlla beru sëriñam mos naa àgg ci yàlla beru sëriñam ñu laaj lu tax dematoo ci sëriñ bi mu ne moo di yàlla lu ma wuti sëriñ bi ñu laaj ko waaw yow lu tax dematoo ci sa sëriñ bi mu ne bu ma xasee gis yàlla lu may wutee ci sa sëriñ ba sëriñ ba ne mu gis ma benn yoon moo gën mu gis yàlla junne yoon sëriñ ba ne dafa xamut waaye mu gis ma benn yoon moo gën mu gis yàlla junni yoon yàlla moom ngay gis ci lu nekk yàlla moom ngay gis ci lu nekk mën na laa sëriñ ci mango gële mën na laa feeñ ci mango bii. mën na laa feeñ ca manaara bale. mën na laa feeñ ca sooroor bale. mën na laa feeñ ca nag wale. mën na laa feeñ ca nag wale itam. mën na laa feeñ ca gàtt bale. mën na laa feeñ ca gàtt bi nga na laa feeñ ci man mi wax ak yow. na laa feeñ ci man mi wax ak yow. feeñ waay yooyu niroo. xam ngeen ne feeñ waay yooyu. di doo ba ngeen fi ñëwee ziyaara si. ba ngeen dikkee képp leen fi fekk ngeen fi yàlla. képp leen fi bàyyi. waye fekk ngeen fi yalla tay bi ngeen ñëwé fekk ma fi itam ba tay tey nekkuma fi yalla fi nekk. tey bi ngeen ñëwé fekk fi bàyyi it ne nekku fi yalla fi nek waaye yàlla yalla yàlla nangu yaara bi. kon nak yalla na yàlla nangu yaara bi yaara bi. ñum nangoo yi jëkke ya. ñim nangoo yaara yi jëkke ya. njëkk ya amul sikki sakane luñ nangula ñu jëkke mo amul benn sikki ne luñ nangu amul ngistal amul leneen ndax amul benn ngistal amul leneen yàlla rek ngeen defal yàlla rek ngeen defaloon ànd ak jëfi sëriñ moom amul ngistal ngistal du ko ànd ak jëfi sëriñ moom benn ngistal nit ki téere yi dañ lay jëfi sëriñ ngistal du ko yàq téere yi dañoo wax ne jëfi sëriñ ngistal du ko yàq ngistalal sa sëriñ du yàq jëf ngistalal sa sëriñ itam duxut ne dafa nag dana yàq jëf man ma ne bàyyi nag moom mu wax ne foofu ngistal mënu faa am foofu daal ngistal mënu fee xam moom ngistal mooy lan ngistal moo di lan di def ngir yàlla di def ngir yàlla di ko wan keneen ku dul yàlla di ko wan keneen ku duhut yàlla waaye ki ngay jëfal nga wan ko ko boobu waaye ki ngay jëfal kay nga wan ko li nga ko jëfal loolu benn ngistal ngistal mënu jaaw moo tax jëf jëf yi sëriñ ngistal mënu ko yàq wala man dama ne ngistal amul waaye jëfal sëriñ dañoo wax ne jëfal sëriñ ngistal mënu ko yàq ngistal mënu koo yàq man dama wax ne ngistal mënu caa am waaye bàyyi nag moom dafa wax ne jëfal sëriñ ngistal mënu caa am maa ngi jëf ngir yow maa ngi la koy wan. maa ngi jëf ngir yow maa ngi lay wan. loolu ngi soog ci am. bàyyi ne loolu benn gis sa mënu ci am. ànd ak nag. ànd ak nag. li nga def ngir bi. li def ngir bi. yaa ko def ngir yàlla. yaa ngi ko def ngir yàlla. comme teewee ba mu faddoo bu ñu xamee ci yow. ba mu teewee ak bu faddoo bu ñu xamee ci yow. loolu tegtale na dëgg tegtale na lixlaas. loolu tegtale na dëgg tegtale na lixlaas. benn wàll yi dafa mos a dogu ci haji makka. benn wàll yi dafa mos a dogu ci haji makka. waaj waaj ba pare. yàlla dogalu ko. yàlla dogalu ko. mu dellu dogu beneen yoon. mu dellu dogu ci beneen yoon. waaj yàlla dogalu ko. waaj yàlla dogalu ko. mu dellu dogu ci beneen yoon. mu dellu dogu ci beneen yoon. waaj yàlla dogalu ko. dellu waajati yàlla dogalu ko. mu dogu ci beneen yoon. mu dogu ci beneen yoon. waaj. dellu waajati. yàlla may ko mu dem. yàlla may ko mu dem. ba mu demee ba taxaw arafaat. ba mu demee ba taxaw arafaat. daf na yàlla. dafa wax ne yow yàlla. ni nga nangoo sama yetti aji jëkk yi. ni nga nangoo sama yetti xaj yu njëkk yi. yal na ko nangoo sama xaj yi yal na ko nangoo sama xaj ak ñeenteel bii ma teew. mooy lim doon ci lu feeñ. mooy lim doon xëy na a moo jafe mayam tax xaj yu njëkk yi ñoom. looloo tax mu xam ne yetti xaj yu njëkk yi moom. yàlla nangu ko. yàlla nangu na ko. amul benn gistal amul benn ràgg. amul benn gistal benn ràgg nekku ci. mu ñaan nag bii itam. mu ñaan bii itam. yàlla mel ni yu njëkk yam. yàlla mel ni yu njëkk yam. siyaara bi yàlla mel ni yu mel ni yu njëkk yam. sant yàlla dafa war jaam bi. sant yàlla dafa war jaam bi. te jaam yi dañu war a dëkk ci di sant yàlla. te jaam dëkk ci sant yàlla. sant yàlla war na ci làmmiñ war na ci xaal war na ci jëf. te sant yàlla. war na ci làmmiñ war na ci xaal war na ci jëf ci làmmiñ bi dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin ci làmmiñ bi wax lu xéewal rëy rëy lépp lu xéewal rëy rëy ko jaam mën da passé moos foofu ci sant ko Souleymane ibnu Daawuda Souleymane ibnu Daawuda gannaaw bu mu nekkee xalifa yàlla ci suuf ginnaaw bu mu nekkee yàlla ci kaw jub bu rab àddina boo xam ne amul frontière moom moom àddina yëpp jub bu rab àddina boo xam ne frontière wu sa kenn moom moom mboolem àddina yemul ci nit ñi xanaa moom moom jinne yi itam ak yemul ci nit ñi xanaa moom moom jinne yi ak rab yeeg njaale yi dëkk ci ak rab yeeg njaale yent yent yi lépp moo ko moom ak ñu dëkk ci géej ak mboolem ñu dëkk géej xewal foofu la mën a yem xam ngeen ne dëgg dëgg foofu la xewal mën a xem xewal ak àddina mën da weesu nguuram ga xewal ak àddina mën da weesu nguur ak Suleymaan xewal ak baatin mën da weesu di xalifa yàlla ci mbindeef yi xalifa xéewal ak baatin mën da weesu nekk xalifa ak yàlla ci kaw mbindeefam yi ba mu boolee yëpp itam bi mu boolee yooyu yëpp nag alhamdulilah rek la wax alhamdulilahi rek la wax benn murid benn murid boo xam ne daf doon tàmbalee yeewu maanaam fa tàmbalee xam yàlla boo xam ne daf doon tàmbalee xam yàlla dafa tukki ci réew dafa tukki ci ay réew yàlla jox ko xéewal yu bari yàlla jox ko ko ay xéewal yu bari mu bind sëriñam mu bind sëriñam. ne ko maa ngi ci réew moo xam ne. ne ko xam ne. li ma yàlla jox ci xéewal. li ma yàlla jox ci xéewal. lott naa ci sant ko. lott naa ci ko. sëriñ ba ne ko xéewal mën da sëriñ ba ne ko xéewal day mën da bëri. ba jaam lott ci sant ko. ba jaam lott ci sant ko. ndax alhamdulilah rek ngay wax. ndax alhamdulilah rek nga mën a wax. boo ko waxee joxe nga cant gu la waroon yëpp. soo ko joxe nga mboolem cant gu la waroon ci xéewal gëpp. xam nga ne xewalam murid boobu la koy rey jegewut bu Souleymane bi xam nga ne xewalam murid boobu doon wax loolu jegewut mukk xewalam Souleymane bi bàyyi doon wax sax te li yàlla nettali ci Souleymane ci alquran te li yàlla nettali ci Souleymane ci alquran mooy ba ko yàlla ko joxe yëpp moo di ba ko yàlla lim ko jox lépp daf alhamdulillah dafa wax alhamdulillah cant ak làmmiñ cant ak làmmiñ boo ne alhamdulillah boo ne alhamdulillah jeexal nga cant yëpp jeexal nga cant yëpp jëf cant ak jëf nag. mooy xewal gi la yàlla jox. moo di jëpp xewal gu la yàlla jox. nga soppi ko ci la gëdëm loo yàlla. nga di ko soppandikoo ca la gëdëm loo yàlla. xewal ak xaal nag. xewal ak xaal ngay seedu. moo di nag ca seedu. ngay seedu taari yàlla yi. ngay seedu taari yàlla yi. ak melo yi. ak melo yàlla yi. ci mboolem waxtu yëpp. ci mboolem waxtu yëpp. loolu mooy sant ak xaarif. loolu moo di sant ak xaarif. buur la bu rafet yàlla buur la bu rafet bu rafeti melo bu rafet ay melo bu rafeti jëf bu rafet ay jëf bu rafeti tur bu rafet ay tur ku rafet la lu nekk koo xam ne dafa rafet la lu nekk bëggut lu mooy ku ko gis bëggut lu mooy ku ko gis te moom kenn gisu ko lu mooy xaarisiine yëpp te moom kenn gisu ko lu mooy xaarisiine yëpp ñoo gis lim lamboo ci ñoom ñoo gis lim ay taar. ci jëmm ak ci melo ci jëf ak ci tut. ci jëmm tax na ba ñooñu rek a tax na ba ñooñu rek ñoo sant yàlla. yàlla nañu ci yàlla boole sant nañu sant yàlla. yàlla nañu sa yàlla boole yaara bi nañ sant yàlla. nañ sant yàlla nañ doole sant yàlla. nañ sant yàlla nañ doole sant yàlla. tanag soweel hitte yi yàlla amul dayo seyru amul dayo yàlla amul dayo seyru amul dayo kon kon nag boo ñëwee ci sëriñ boo dikkee ci sëriñ bu la bëgg a jëriñ waxuma bu la bëgg a jëriñoo sëriñ bu la bëgg a jëriñ waxut ba la bëgg a jëriñoo nag dafay bëre ba nga jeex ci yàlla day bëre moom sëriñ ba da yow mi nga jeex tàkk ci yàlla ndax feeg jaam jeexut ci yàlla ndax feeg jaam bi jeexut ci yàlla ak bokkaaleem dañ a gut fokk nga jeex ci yàlla pour mucc ci bokkaale fokk nga jeex ci yàlla tàkk soga mën a mucc ci bokkaale fokk nga jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fokk nga jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ko mooy lu mooy loolu ay maqaama ngay ñëw ci gannaaw ay maqaama ngi ñëw ci gannaaw te sayru te sayru bu matee ba nga delluwaat ci saatu su matee ba nga delluwaat ci saatu bu fekkutoon nga jeex ci yonent dootoo xam ku yonent bu fekkutoon nga jeex ci yonent dootoo xam mukk kuy yonent te ku xamul yonent doo jotee yàlla dara te ku xamul yonent boobu doo jotee yàlla dara mooy buntab yàlla ku fa jaarul doo dem loolu moo di buntab yàlla yonent bi mooy buntab yàlla ku fa jaarul yonent bi mooy buntab yàlla ku jaarul ci moom doo dem nañ bëri ba nga jeex ca sëriñ bi na na nga bëri ba jeex danañ bëree xaaris bi sëriñ sëriñ bi la bëgg jariñ jëriñ dana bëre ba nga jeex ci sëriñ bi sëriñ bi la bëgg a jëriñ dana bëre ba nga jeex ci sëriñ bi ndax moom itam ndax moom itam ci maqaama yi ngay yóotu si maqaama yi ngay yóotu si bu sa sayru taxawul bu sa sayru taxawut da nga mujj boo jeexu doon ci sëriñ bi doo xam ci sëriñ bi da nga mujj boo sëriñ bi doo xamante kuy sëriñ lii moo tax de looloo tax de seen njël yéeni sayru seen njëlbéenu sayru. ñu leen di yitte. boo jeexale boo jeexalee. te dox ci melo ak ci melo yàlla yi. ak turi yàlla yi. ak turi yàlla yi. ba jaar ci bu yi nga war a jaar. ba jaar ci bu yi nga war a jaar. dañ lay jëf bu xaat yoonu ñaareel nga dellu ci dañ lay jëf bu xaat yoonu ñaareel. nga dellu faatu day fekk nag dëgg dëgg doo mën a am dara lu am lu may jëm yàlla ji ndax fekk nag dëgg dëgg loo xam ne du man a xam mukk lu may jëm yàlla bi te nekkuloo ci fannaawam te kat taxul nga nekk booba ci fannaawam waaye da nga xam ne dana nekk fi rek waaye dana la wóor tëng ne dara nekkul waaye du tax nga fakk yonent bi waaye du tax nag nga fakk yonent bi ci melaw yàlla wu jëkk ci melaw yàlla wu jëkk du tax nga fakk sëriñ bi du taxit nga fakk sëriñ bi ndax melo yàlla la ndax melo yàlla la waaye nag dootoo leen gis mukk waaye nag dootoo leen gis mukk de dootoo gis seen jeexit dootoo gisit seen jeexit jëm yàlla ji rek ngay gis jëmmi yàlla ji rek ngay gis ñoom boo leen gisee jëmmi yàlla ji ngay gis ñoom ñoom boo leen gisee jëmmi yàlla ji ngay gis ci ñoom ma ne ci sama njël benn sayru bàyyi mu ne ci njël benn sayroom am naa di bu yàgg di wax ne man daal xam Cheikh Tidiane mën a jaar ba gën ma am na diir bu yàgg di wax ne man daal dëgg-dëgg xaw ma si Cheikh Tidiane mën a jàpp dëgg ma ba nekk sama sëriñ ban ba mën a nekk sama sëriñ gannaaw ba nag la ko ko yàlla xamal gannaaw gi nag mu ne la ko ko yàlla xamal ma ne moo mooy sama waasitatu ci ci ma àgg mu ne nag mooy waasitatoom kon ci fi mu àgg bi mu nekkee sama waasitatu rek wasaatatu boobu la ma bi mu nekkee waasitatoom rek wasaatatu boobu la ma tuddee ba nekk sama sëriñ wasaatatu boobu moom la ko tuddee ba nekk sëriñam xam ngeen maj soob yàlla dana koy jay lool ci maqaama xam ngeen ne maj soob yàlla dana koy jay lool ci maqaama te dëgg rek la wax te dëgg rek la wax kat ndax ku nekk ci téyeb yàlla bi nga xam ne mooy lépp moo moom lépp ndax ku nekk ci téyeb yàlla bi nga xam ne mooy lépp te moo moom lépp bu feeñ bu la feeñoo bu la feeñoo wala na lépp lu ma am yow laa ko may wala na lépp lu ma am yow laa ko may da ngay wax ne yàlla may na ma lu ma sa may kenn te dootu ko may kenn da ngay wax ne yàlla may na ma lu mus da may kenn te dootu ko may keneen nag. loolu ma gisoon dana koy wax. loolu ma gisoon dana koy wax. ku ko dégg defe ne mustahil la. ku ko dégg defe ne ndax loolu dafa jomb. ñu xamut defe ne karaama yi jago benn sëriñ la. ñu xamut defe ne ndax ne karaama yi benn sëriñ jagoo la. fekk maj soob bu ne jaar na foofu. fekk maj soob bu nekk jaar na foofu. maj soob bu ne taxaw na taxawaay boo xam ne xóor na ko jox na a jox kenn te ko jox kenn. maj soob bu nekk taxaw na taxawaay boo xam ne wóor na ko ni yàlla jox na ko lu mu mës a jox kenn. te musu ko jox kenn tëjliyaatu yàlla yi tëjliyaatu yang yi nag xaarifina yi dajeeg ñoom xaarifina yi dajeeg moom ku nekk tëjli ba nga dajeet kenn musu dajeeg moom te kenn musu dajeeg moom ku nekk tëjli ba nga dajeet kenn musu dajeeg moom te keneen dootu dajeeg moom te terewul kenn la rek te kenn la la alquran di wax naa wa taral jibaala taxsibuha jaamidatan wa hiya marra sahab yaa ngi janoog doj yi mu ne yaa ngi janoog taxaw yaa ngi defe ne dañoo taxaw te ñu ngay dox dox bu gën a gaaw sax bi niir yi dox te ñu ngay dox dox boo xam ne moo gën a gaaw dox bi niir yi dox ci kaw foofu ci la aarif di xamee ne foofu nag ci la aarif di xamee ne jëmm ja bàyyeekoo néegam ñëw fii ci jotaay bi jëmm ja bàyyeekoo néegam ñëw fii ci jotaay bi ak bay ñibbi bi ci bi tasee du benn ak bay ñibbi bu jotaay bii tasee duhul benn te jëliyaat yaa ngi wéy rek te jëliyaat yi daal mu ngoog di dem rek ma ne du yàlla la feeñu ci kii te du duhut ne yàlla la feeñu ci kii yam benn feeñu ko wéy na benn feeñoo feeñu xaat la ci bu feeñu xaat la ci bu bi dugub bu njëkk ba bu bi xam nga kenn ni bu bi yàlla feeñu ci baay bi yàlla feeñu ci baay bi moo feeñu ci doom bi moo feeñu it ci doom bi tëjëli at yi bokkul xam ngeen ne tëjëli at yooyu day bokkul loolu tax ba doom lu mu nidu nidu bàyyam xam nga wute moo tax doom lu mu nidu nidu bàyyam fokk mu xam ne ay mbokk mbokk ndey bokk bàyyi ay mbokk bokk ndey fokk am lu ñu wute. fokk rek ñu am lu ñu wute. ndax tajaliyeeg. lu tax tajaliyeeg yi dañoo bokkul. bokkul dañoo wute. mbooloo mi génnoon ci néeg yi daje fii. mbooloo mi génnoon ci néeg yi dikk daje fii. wéy nañ bu yàgg a yàgg yàgg. yooyu mbooloo dem nañ bu yàgg. ñeneen a ñeneen a fi nekk. ñeneen kat ñoo fi nekk. bu jotaay bi tas ñeneen a fi jógee. bu jotaay bi tasee ñeneen a fi jógee. ci xàq tajaliyaat ci wàllu baatin kay. ci xàq tajaliyaat ci wàllu baatin. waxuma ñi ñi way nag duñ gis lu may duñ gis lu may lenn. waxuma ñi way nag nga xam ne duñ gis lu mooy lenn. duñ gis lu mooy masaayir gisuñ dëgg-dëgg gi. duñ gis lu mooy masaayir gisuñ dëgg-dëgg gi. ci kaw loolu. ci kaw loolu nag. lépp. lépp. lenn li la. lenn li rek la. lenn li mooy lépp. lenn li itam mooy lépp. ca asal ba ca abat. ca asal ba abat. ñun jaami yàlla lañ. ñun jaami yàlla lañu. yoo xam ne jaami yàlla yoo xam ne dañoo dëkk di xaaja jëm ci yàlla dañoo dëkk di xaaja jëm ci jëm ci jëmmi yàlla ja jëmit ci jëmmi yàlla ja ndax dëgg-dëgg jëm yàlla ja rek a ñu doy ndax dëgg-dëgg jëmmi yàlla ja rek moo ñu doy leneen lu ñu jox leneen lu mu ñu jox nag lu mu rëy rëy lu loola rëy rëy dana jeex ñu soxlaati dina jeex ñu soxlaat leneen lu mooy jëmmi yàlla ja lu mooy nag jëmmi yàlla ja maa ñaan ci fan yii bàyyi ngi ñaan ci fan yii maa ngi ñaan xiwu yàlla mi ngi ñaan xiwu yàlla ma gis ne xiwu yàlla du ma jëriñ dara bàyyi gis ne moom xiwu yàlla jëriñu ko dara ndax dafay jeex ma dellu soxlaati ndax dafay jeex mu dellu soxlaat yërmande yàlla du ma jëriñ dara yërmande yàlla it mu gis ne du ko jëriñ dara dafay am fu mu yem ma dellu soxlaati ndax day am fu mu yem mu soxlaat ngëneelam noonu ngëneelam itam noonu rek mayam noonu ak mayam itam noonu lii lii jëriñ daal li jariñ nak nga xamne boko amé nga xamne ne boko xamé doto aaju mukk doto aaju mukk moy jëm yalla ji rek mooy jëm yalla ji rek kon na yalla ñu yalla may yalla kon yalla nañu yalla may yalla ya rabbi leneen lu ñu may rek dana jeex leneen lu ñu may lu dul loolu dana jeex leneen lu ñu may dañ tagu mum delloo aaju leneen lu ñu may danañ tàggoog loola delloo aaju ha ban yalla ñu yalla may yalla kon dal yalla ñu yalla may yalla ya rabbi loolu rek ñu mëna jëri ndax loolu rek ñu mëna jëri jëriñ Moussa waxoon na ne Moussa waxon na ne yow sama borom yow suma borom. lépp loo wàcce ci man. lépp loo wàcce ci man. ciw yiw. ciw yiw. xaajo naa ko. xaajo naa ko. wax ne booba dafay gone rek. waaye booba kat bi wax loolu day gone. waaye ba mu matee. waaye ba mu matee nag. jëmm ci la ñaan rek. jëmm yàlla ji rek la faf ñaan. rabbi arini anzur ilayka la wax. mu gis ne. mu gis ne. lépp lu jaam ñaan. lépp lu jaam di ñaan. soxla na ko. soxla na ko waaye su ko xamee du tere mu soxlaat leneen waaye bu ko xamee kat du tere mu soxlaat leneen lu mooy jàmm bi am yàlla rek lu mooy jàmm bi xam yàlla yàlla nañu xam yàlla yàlla nañu xam yàlla yaa rabbi yàlla nañu yàlla may yàlla yàlla nañu yàlla may yàlla yaa rabbi te dig nañu ko te yàlla dig nañu ko fët ne nañu wax nañu ne antum fuqaraa ilallah na ne ñun ñëpp dañu xaajo jëm ci yàlla na ne ñun ñëpp dañoo xaajo jëm ci yàlla xaajo gi doomu aadama xaajo jëm ci yàlla xaajo gi ji xaajo jëm ci yàlla doomu aadama rek ko xaajoon doomu aadama rek moo ko xaajoon moom dafa aajo jëm ci yàlla aajo goo xam ne doomu aadama dafa aajo jëm ci yàlla aajo goo xam ne amul dayo amul dayo te aajo googu du jeex mukk te aajo googu du jeex mukk yeneen yi ci des noppalu nañ yeneen yi ci des noppalu nañ bàyyi ma yeeg jamaat yi ak yooyu bàyyi ma yeeg jamaat yi ak yooyu ndax seen xel nekkut ca ne foofa ndax ñoom seen xel nekkut ca la nekk foofa waaye ku xas yàlla hubbi na sa bëti xol da sapp jëm ca la nekk foofa ba nga sapp nag jëm ca la nekk foofa yow am nga soxla soo xam ne dootoo ñàkk soxla mukk la yow am nga soxla boo xam ne dootoo ñàkk soxla mukk kooku mooy doomu aadama kooku moo di doomu aadama yàlla dellu ko wax ne bind na ko def ko muy ku néew doole yàlla dellu wax ne bind na doomu aadama def ko muy ku néew doole néew dooleem googu mooy sapp gi mu sapp yàlla néew dooleem googu moo di sapp gi mu sapp yàlla bëgg gi mu bëgg yàlla bëgg gi bëgg yàlla te yàlla te yàlla. li ci bi bëgg. li ci aarif bi bëgg. dëgg dëgg mënu caa mënu koo am. dëgg dëgg mënu koo am. moo ñu ñuy def yàlla lañ bëgg mënuñ cee jot. moom la ñuy def nag ñun yàlla lañ bëgg mënuñ cee jot. bu dindee kii daay yëpp ba dara doxut suñu diggante ak moom. bu dindee kii daay yëpp ba dara doxut suñu diggante moom. mu ñàkkal ñu ba ñu nekkatuñ. mu ñàkkal ñu ba ñu nekkatuñ fa nag sax. dañuy jëriñoo dañ ñu may. kon nag nim ñu may nuñ koy jëriñoo. ñun doomu aadama. ñun doomu aadama danañ bëgg aw ñam danañ bëgg ñam ñu lekk ko mu neex ci ñun lekk ko mu neex ci ñun mënuñoo lekk yàlla mënuñoo lekk yàlla xam ngeen ne danañ bëgg ak naan gu neex naan ko mu neex ci ñun danañ bëgg naan gu neex bu sedd naan ko mu neex ci ñun mënuñoo naan yàlla xam ngeen ne mënuñoo naan ko mu neex ci ñun lekk ko mu neex ci ñun mënuñoo lekk yàlla mënuñoo lekk yàlla xam ngeen ne danañ bëgg ak naan gu neex naan ko mu neex ci ñun danañ bëgg naan gu neex bu sedd naan ko mu neex ci ñun. mënuñoo naan yàlla. xam ngeen ne mënuñoo naan yàlla de. danañ bëgg jigéen gi rafet denc ko. danañ bëgg jigéen gi rafet denc ko. mënuñoo jot ci yàlla ba def ko jabar wala jëkkër. xam ngeen ne mënuñoo jot ci ah, te moom rek lañ bëgg. te ñun kat moom rek lañ bëgg. waaw fuñ jëm nag. kon na ñun fuñ jëm. ngeen xam ne. ngeen xam ne. bëgg giñ ko bëgg nag. bëgg googu ñu ko bëgg nag. moo ñu bëgg loo lépp luñ bëgg. moo ñu bëgg loo bëgg dañuy julli. dañuy julli. bëgg yàlla ñu ci dugal. bëgg yàlla rek moo ñu ca dugal. dañuy xoor bëgg yàlla ñu ca dugal. bu ñuy xoor bëgg yàlla rek dañu ca dugal. bu ñuy joxe suñu alal bëgg yàlla ñu ca dugal. bu ñuy joxe suñuy alal bëgg yàlla rek moo ñu ca dugal. bu ñuy lekk wala ñuy naan bëgg yàlla ñu ca dugal. bu ñuy lekk wala ñuy naan. bëgg yàlla rek moo ñu ca dugal. ànd ak munuñ koo lekk munuñ koo naan. ànd ak yëpp nag munuñ koo lekk moom munuñ koo naan. waaye munuñoo lekk leneen munuñoo naan leneen. waaye munuñoo lekk leneen kat nit bëgg giñ ko bëgg munuñoo naan bëgg giñ ko nekkee na. kat nit bëgg ko bëgg munuñoo naan leneen nit bëgg giñ ko bëgg. waaye moom bu nekkee naan sax ñu bëgg ko naan. waaye moom bu nekkoon naan sax ñu bëgg ko naan. bala ñoo bëgg a naan. balam ko bëgg bala ñoo àgg ci moom ba naan ko fekk ñu ñu ñàkk ba neetu bala ñoo àgg ci moom ba naan ko fekk ñun ñu ñàkk ba ñëkkatuñ ko duñ mën a naan xanaa xalaat gi ñu xalaatoon xanaa kon xalaat gi ñu xalaatoon bëgg naan rek bëgg naan moo ñu mandi mandiloo xanaa bon loola rek moo ñu mandi mandiloo ibnu faaril wax na ne ibnu ibnu faaril wax na ne ibnu faaril wax na ne mi ngi ndokkeel gaañi mi ngi ndokkeel gaañi waa pay bi waa pay bi ñoom ñi mandi ñoom ñi nga xam ne dañoo mandi ci yàlla ci yàlla te naanuñ ko te naanuñu ko it xanaa dañ ko yitte rek xanaa dañ ko yitte woo rek boo ko bëggee naan rek mu ñàkk loola far soo bëggee naan rek yow nga far ñàkk far ba nag bëgg naan gi mooy sax naan kon day bëgg naan gi rek moo mën a def ak naan ci nga mandee ci nga mandee kon xanaa boo àggee ba naan ko rek fekk na moom eh, eh, eh, boo nekkatu fa ndax nekkatu soo àggee ba naan rek yow nekkatoo fa nekkatoo fa moom nekkatu yow nekkatoo fi moom mi doon naa it néewtu bi. tuuti ci kii kii daal mooy am nga soog a mën a àgg ci li nga bëgg. tuuti ci kii daal mooy xam nga mën a àgg ci li nga bëgg. moo tax. looloo tax. mbëggeel. mbëggeel. di rey aarifiina yi. di rey aarifiina yi. liñ bëgg duñ ci àgg mukk. ndax liñ bëgg duñ ci àgg mukk. waaye foofay dayoo bi. waaye nag foofu kat mooy dayoo bi yëf dayo bëgg dayo bëgg dayo gitte dayo gitte dayo ngelamane dayo ngelamane foofu rek la mag ñi am rek kat la mag ñi ah, na ngeen góorgóorlu ba yéen ñëpp ngeen na ngeen ba dara nekk fi lu dara nekk fi lu ku rek nga ci ku nga ci ku gis yi di rek ku gis mbindeef yi ñu di ak ñàkk lu dul yàlla amul lu dul yàlla amul sa kiiraay dañ na sa kiiraay yow dañ na waaye loolu doyul de waaye xem foofu rek day doyul ak li muy kawe yëpp ak li loolu kawe lépp loo xéeg xéeg nag loo xéeg xéeg da nga fàttaliku sa dëgg bu njëkk boobu da nga sa dëgg bu njëkk boobu mu gën a la lépp loo am mu gën a la lépp loo xam waaye rek xéegal rek waaye nag càng xéegal rek xaari si ne nii aarifiina yi duñ dañ di fàttaliku seen njëlbeen duñ dañ di fàttaliku seen njëlbeen di mébét delloxoon foofa di mébét delloxoon foofa woon dee dara lu dul yàlla. gisatoo dara lu mooy yàlla. bëggatoo dara lu dul yàlla. bëggatoo dara lu mooy yàlla. geesatoo dara lu dul yàlla. geesoo dara lu mooy yàlla. gannaaw ga nga mànk bay am loo bëgg. gannaaw ga nga mànk nag yow bay am loo bëgg. dëgg-dëgg lii rek lay niru sax. loolu dëgg-dëgg ak rek lay niru. waaye daal mooy mat waaye nag moo di ak mat. moo tax ba mat. looloo tax ba mat dafay nidoog wàññeeku day nidoog ak wàññeeku ndax mat dëgg dëgg dëgg dëgg ndax mat dëgg dëgg dëgg mooy bàyyi lépp lu dul yàlla mooy bàyyi lépp lu dul yàlla doo ko gis doo ko geestu doo ko gis doo ko geestu doo ko yittewoo doo ko xalaat doo ko yittewoo doo ko xalaat nga wàññee ko aar nag mel ni da gis leneen nga wàññee ko nag mel ni ku gisaat leneen ngir nga topp ndigal yi ngir nag nga topp ndigal yi bàyyi tere yi ngir nga bàyyi tere yi lolu ak wàññeeku la lolu ak wàññeeku la waaye moo di mat waane nag moo di ak mat ku jeexut ci yàlla max max jóg nga ku jeexut ci yàlla max jóg nga ku jeex ci yàlla te dellu si ci mbindeef yi ku jeex ci yàlla te dellu si ci mbindeef yi matuloo yow kon matoo balaa ngaa mat balaa ngaa nekk mat nga boole ñaari da ngay boole ñaar ñi ngay naan ba mandi ngay naan ba mandi te mandi googu te mandi googu bu ndox sa diggante ak lay sëriñ ñeneen ñuy naan bu ndox sa diggante ak nga mën a sëriñ ñeneen ñuy naan boo mandee nag dëkk ci mandi rek te te te xiri soo mandee nag dëkk ci sa mandi te rek yow te xari da nga mandi bu baax rek booba daal da nga mandi bu baax rek waaye ku la gën dëgër ak mandi rek dafay gaaw a xiri waaye képp koo xam ne la gën dëgër ak mandi moo lay gën a gaaw a ndax yàlla lim bëgg lim bëgg mooy ñu xam ko mooy ñu xam ko ñu jaamu ko la wax ñu jaamu ko la wax waaye teggi ni sariatu la waaye teggi ni sariatu la wax ñu xam ko la bëgg waaye ñu xam ko daal moom la bëgg ah mbindeef yëpp mbindeef yëpp ñu xam yàlla rek la ci yàlla bëgg ñu xam yàlla rek la ci yàlla bëgg ñooy barabab seeti seet ak yàlla ci mbindeef yi ñooy barabab seet ak yàlla ci mbindeef yi ñoo tax muy taw ñoo tax muy taw ñoo tax muy saxal gàncax ñoo tax muy saxal gàncax ñoo tax muy wàcce wërsëg ñoo tax muy wàcce wërsëg. moo tax doom yi di juddu. moo tax doom ñi di juddu. bu aaree fii nag ci suuf rek yooyu yëpp daal di jaar. bu kaw suuf rek yooyu yëpp daal di jot ci kaw suuf. léegi nekk léegi nag. ñu ngi ci jamono yoo xam ne. ñu ngi ci jamono boo xam ne. madda yi. madda yi. not nañu maanaa yi. not nañ maanaa yi. not nañ roxo yi. not nañ nit roxo yi. dem bindeef yi. dem yi. ñu ngi aaju ci madda yi. rek. ci madda yi ku am gëm yàlla képp ku am gëm yàlla am lislaam saayir bi sax am lislaam ak saayir bi rek sax ñu ni ñoom réer nañ ba gisatuñ lu mooy àddina rek ñenn ñoom réer nañ sax sax ba gisatuñ lu mooy àddina lekk ak naan ak rek lekk ak naan ak rek faggu xalal denc ko ko loolu loolu rek ay dundab doomu aadama doomu adama ji fokk yaramam dund ci loolu doomu adama ji fokk yaramam dund ci loolu waaye fokk roxam dund ci leneen waaye fokk roxam dund ci leneen bu roxam dund ci leneen bu fekkee roxam ji dund ci dund bi bi dund terew ko di ab néew terewu ko doon néew néew la bu ñu rob ci biir yaram yaramam néew la boo xam ne dañ koo rob ci biir yaramam balaa nekk kuy dund balaa nekk na kon kuy dund ba te roxam dundee ci yàlla ba sa roxoom di dundee ci tudd yàlla bëgg yàlla xam yàlla bëgg yàlla xam yàlla jege yàlla jege xëpp yàlla dëkkaaleeg yàlla dëkkaaleeg yàlla foo nekk nekk fa yàlla foo nekk nekk fa yàlla téye yàlla bi ñuy wax téye yàlla bu kawe bi téye yàlla bu kawe bi ci taxoon ñu rañaane Muhammad ba mu jàll asamaani juróom-ñaar ci taxoon ñu rañaane Muhammad ba mu jàll asamaani juróom-ñaar téye yàlla boobu mooy foo nekk rek te dara doxul sa diggante yàlla téye yàlla boobu mooy foo nekk rek te dara doxul sa diggante yàlla te loolu dana daal di jëriñ ci sa jëmm. te loolu dana daal di jëriñ ci sa jëmm. jëriñ ci sa barab jëriñ ci sa waxtu. jëriñ ci sa barab jëriñ ci sa waxtu. ndax yëf yi. ndax yëf yi. xaaj lañu rek. xaaj lañu rek. ki amal yëf yi. ci ki amal yëf yi. mbindeef. mbindeef. xaaj la ci ci ko bind. xaaj la ci ci ko bind. mën nga tàggoo ak ci ko bind. fokk. mu ànd ak yàlla yàlla ànd ak moom fokk mu ànd ak yàlla yàlla def ànd ak moom muy xaari muy xaari wala wala mu ànd ak yàlla te yàlla mu àndul ak moom mu ànd ak yàlla te yàlla àndul ak moom loolooy li gën a bari loolooy li gën a bari li gën a bari ñoom maqaam ak lixsaan ñoom maqaam ak lixsaan ñoom dañu ànd ak yàlla yàlla ànd ak ñoom ñoom dañoo ànd ak yàlla yàlla ànd ak ñoom ku yàlla àndat nag ku yàlla àndat tam yow itam du tere yow nga ànd ak yàlla du tere yow nga ànd ak yàlla ndax mën laa tàggoo ndax yow mënoo xa tàggoo yàlla te jëmm ji ne te jëmm ji baaraam bi gën a tuuti baaraam bi ci gën a tuuti mën da beru tàggoog jëmm ji mën da beru moos tàggoog sa jëmm ji jëmm ji it loxo bi xaaj la ci loxo bi xaaj la ci loxo xaaj la ci benn loxo bi xaaj la ci bopp bi xaaj la ci. tànk yi xaaj la ci. tànk yi xaaj la ci. ak cër yëpp cër bu nekk xaaj la ci. cër yëpp cër benn bu ci nekk ab xaaj la ci jëmm ji. benn bu ci jóg rek jëmm ji mën a suuf. benn bu ci jóg rek jëmm ji dal nay mën ci. bu yëpp boolooxee mooy jëmm ji. bu yëpp boolooxee lay soog doon jëmm ji. waaw ku jëmm ji amee te xaaj yooyu amul. kon nag ku jëmm ji amee te xaaj yooyu amul. Kawlax. Kawlax. ku ne Medina du Kawlax. ku ne medina du kaw la jalañ du kaw la jalañ du kaw la lewna du kaw la lewna hit du kaw la kasna du kaw la kasna du kaw la sara njugaari du kaw la nit du kaw la sam du kaw sam du kaw la ana kaw kon ana fuy do kaw la amuk kaw la kon kaw la du jambi itam jambi itam gëna yalla la bëgg bu ne yàlla la bëgg tëjëli bu taxaw ci kanamam rek ne lii du yàlla tëjëli bu taxaw ci kanamam mu seet ne lii de moom du yàlla du àgg yàlla mukk booba jaam day teeboo toog du àgg ci yàlla mukk na tàmbalee ci la ko gën jege na tàmbalee ci li ko gën a jege su bëggee àgg ci yàlla mu sori ma su bëggee àgg ci yàlla mu sori ma kon mën nañoo am yàlla ci jaam yi kon kay mën nañoo xam yàlla ci jaam mën nañoo xam jaam yi tamit ci yàlla. mën nañoo xam jaam yi lépp ci yàlla. ndax mu génn ci loxoom. ndax mënuñoo génn ci ay loxoom. ñu ci ab téyam. ñoo ci ab ndëbam. suñu yeboo sax bañ a topp mbindee yi di leen neexal di wut seen gërëm. suñu yeboo sax bañ a topp mbindee di wut seen gërëm. nañu wut ngërëmal yàlla muy teew ci suñu kanam. nañ wut ngërëmal yàlla li nga xam ne moom mi ngi teew ci suñu kanam. su yàlla mi teew ci suñ kanam kontaanee. yàlla mi teew ci suñ kanam bu kontaanee ci ñun. ñëpp kontaan bu leen neexee ak bu leen naqaree. ñëpp danañ kontaan ci ñun bu leen neexee ak bu leen naqaree. mooy bu yàlla bëggee jaamam. moo di bu yàlla bëggee jaamam. digal ñooñu asamaan ñu bëgg ko mu digal ñooñu suuf ñu bëgg ko. day digal ñooñu asamaan ñu yàlla rek bu yàlla bëggee ñu bëgg. mu neexee ak mu naqaree mooy mënuñoo yàlla. su yàlla bëggee ñu bëgg su bëggee ñu bëgg bu la neexee bu la neex su yàlla bëggee daal bëgg bu leen ak bu leen naqadee ci tam nag léegi nga gis monsieur bu taxa fële ne ma yàlla léegi nga gis monsieur bu taxaw fële ne ma yàlla kooku ko am yàlla ndax amuloo ko ndax kooku ko am yàlla amuloo ko bu fekkee la mu wax dëgg la bu fekkee ne la mu wax dëgg la te sori yàlla ba ne yàlla te sori yàlla ba yàlla kenn du dajeeg moom kenn du ko gis ba ne yàlla kenn du dajeeg moom yàlla kenn du ko ba jéemu te wut a jege yàlla ba jéemu de wut jege yàlla moom ndax loolu dana ko tax a sori yàlla ndax loolu mën na ko tax a sori yàlla ndax loolu mën na ko génne ci yàlla ndax loolu mën naa tax mu génn ci yàlla ndax loolu mën na tere boo amee yàlla rek amaale ko mu neex ko mu naqadi ndax loolu nag naa tere boo amee yàlla amaale ko mu neex mu naqadi ko dara na ci loolu mos naa ko nekkal benn commandant bàyyi ne mos na see nekkal benn commandant ci tubaab yi fi yi fi nekkoon lu ma ko sant rek loolu day def lu bàyyi sant commandant bi rek mu def loola ñu commandant dañ la jullit la ñu ne commandant bi rek dañ la jullit la taalibe la ëpp taalibe la moo tax mu wéy ci lépp lu ma ko sant moo tax lépp loo ko sant rek mu wéy ci man man mo dem xamul yalla ba rek ñu la bay na len man day waxtu bu mom tidiane kon bu ngeen di julli la man do ko xamati waxuma julli la waye wali la waxuma ne jullit la waaye waliyu la sax. wala mooy waliyu waliyu. wala boog mooy waliyu waliyu. wala mooy wilaya. wala boog mooy wilaya. ndax loolu amee. ndax bu loolu xamee. kooku dana mën a. kooku kon dana mën a jënd ci. jaam bi am yàlla. jaam bi xam yàlla ba noppi. xamaale ci kooku. xamaale ci kooku ndax mën na cee jënd baax. mukk nañu wut njëriñ. nañu wuti njëriñ. te nañu wut njëriñ ci yàlla. te nañu wut njëriñ ci yàlla. te yàlla nañ ko wut. te yàlla nañ ko wut. mën nañ ko wut ci jaam yi. mën nañ ko wut ci jaam yi mul ko malakoot ñoo jokkoo mul ko malakoot ñoo jokkaloo jaam bi néew fi yàlla rek a fi nekk jaam bi nekku fi yàlla rek a fi nekk rawatina jaam xam loolu rawatina nag jaam bi xam loolu nit mën naa am yàlla ci jaam bi nit mën naa am yàlla ci jaam bi nit mën naa am yonent bi ci jaam bi nit mën naa am yonent bi ci jaam murit murit ñu bari nañ ko wax te xamuñ lu mu teg ñu bari danañ koy wax te xamuñ lu tekki murit mooy koo xam ne bëggut lu mooy yàlla murit mooy koo xam ne bëggut lu mooy yàlla te laa budda foog mu am yàlla te laa budda foog mu am yàlla ma ne dogu na ci ne moom foog mu am yàlla bàyyi ne mu ne na ci ne moom foog mu am yàlla mu jóg di wuti yàlla mu jóg nag di wuti yàlla bu ko yàlla agalee foofu rek du dem di wuti fay fekk kii muy wuti gën koo jege sax mu di ko wuti su àggee foofu dafay du jël di wuti kon du jóg sax sax di wuti fay fekk li muy wuti gën koo jege mu di ko wuti li muy wuti gën koo jege mu di ko wuti mu ñu bari ñu bari ñàkk sëriñ bu mat ñàkk sëriñ bu mat bu leen mën a àggale ci yàlla bu leen mën a àggale ci yàlla moo leen tere àgg ci moo leen tere àgg ci yàlla bëgg nañ yàlla ndax ñoom bëgg nañ yàlla buñ gisoon sëriñ bu mat buñ gisoon sëriñ bu mat foog ñu jàpp ci moom ndax ñu àgg ci yàlla foog ñu jàpp ci moom ndax ñu àgg ci yàlla xam nañ ne yàlla am nay waliyu xam nañ ne it yàlla am nay waliyu waaye anañu waaye nag anañu nga ne ko sëriñ Aliou mu ne déedéet nga ne ko sëriñ Aliou mu ne ah déedéet moom ñun ñëpp yam sëriñ Aliou mii moom ñun ñëpp yam nga ne sëriñ Mbaye mu ne déedéet nga ne sëriñ Mbaye mu ne déedéet Cheikh Omar mu ne déedéet nga ne Cheikh Omar mu ne déedéet nga ne ko Cheikh Ñang ca tay mu ne déedéet nga ne Cheikh Ñang ca tay ba ñeneen mu ne mukk déedéet Ibrahima Ñang sax mu ne déedéet Mbaye sax bu yeboo mu ne déedéet waaw kañ lay am sëriñ bu mat bu ko kooku nag kon moom kañ lay mën a am sëriñ bu mat bu ko mën a àggale te dana dana am lay yu wóor kat ci ne ñooñu ñoom duñu wàllu yu mat te dana am lay yu wét kat ne ñooñu duñu wàllu yu mat waaw kooku moom du àgg ci yàlla mukk kooku moom du àgg ci yàlla mukk xam ne dogu na ci ne ki nga xam nag ne moom dogu na ci moom fokk mu jéem a jëriñu ne moom fokk dana jéem a jëriñu fokk mu wut yàlla fokk mu wut yàlla fay wax mën naa jàpp ci kii sax bu duwut moom sax fay wax ne man daal naa jàpp ci kii rek jilee du moom sax fay dal di fekk rek muy moom day dal di fekk booba rek muy moom ndax yàlla gën a jege ñu di ko wuti ndax yàlla gën a jege ñu di ko wuti te wax na ne mooy kii xuyu ku loru jëm ci moom te wax na ne mooy xuyu képp ku loru jëm ci moom koo xam ne sëriñ jafe na ko daal koo xam ne sëriñ jafe na ko daal bëggam yàlla dafa def rek bëggam yàllaam moo def waaye bu bëggam yàlla matee waaye bu bëgg yàlla matee te fokk mu xam yàlla te fokk mu xam yàlla dafay daal di gis sëriñ bu mat bi gën koo jege mu di ko wuti dafay daal di gis sëriñ bu mat bi gën koo jege mu di ko wuti su fekkee bëgg yàlla am des na nag su fekkee nag bëgg yàlla am dafa des lu mandargaay sëriñ bi fee lu mandargaay sëriñ bu mat bi feeñ feeñ rek moom du ko gis moom du ko gis mukk sëriñ ma xam du gis jant bi lañu yàlla. sant leen yàlla. alhamdulilah lii du yéen a ko defal seen bopp yàlla lañ ko defal. doxul ne cëpp. yéen a ko defal seen bopp yàlla leen ko defal. ak tabax. def na ay at. def na ay at. ñuy waxtaanee wàllu yu rëy yu fi nekkoon. ñuy waxtaanee wàllu yu rëy yu fi nekkoon. Ibrahima Niass jamono wàllu yu la woon. jamono wàllu yu la woon. Cheikh Ousseynou wàllu yi la xoon. Cheikh Omar Baye Mbaye. waaye ñu yang nekkee nag ñoom duñ dara. kat ñoom duñ dara. Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. ku ci dégg turam léegi. képp ku ci dégg turam léegi. doo sikki sàkk Sering ne sëriñ bu mat la woon. doo sikki sàkk ne sëriñ bu jaar na Tuluj. jaar na Algérie. jaar na Algérie. jaar na Xaahira. jaar na Xaahira. Makka Madina. dem Makka Madina. su fi ne ba mu fa demee fekk na fa sëriñ. su fi nekk ba mu fa demee fekk na fa sëriñ. mu jàpp ci moom di wut ci moom njëriñ. mu jàpp ci sëriñ booba di wut ci moom njëriñ. Cheikh Tidiane moomu am na taalibeem. Cheikh Tidiane moomu am na taalibeem. dem na fu gën a sori fu mu dem. dem na fu gën a sori fu mu dem. mos na dem fenn ba mos a sëriñ bu mos a dem sëriñ yow dañ koy def. taalu beeg boobu mos a dem fenn ba xut ko sëriñ fu mu mos a dem rek sëriñ tey mu ci moom. wante nag. waaye nag. Eh, wala mi ngi teew du dara. wala mi ngi teew du dara. seex na ne. ndax seex wax na ne. jenn waay. jenn waay. ca kuré ba. te kuréel ba. feeñ na ba àddina yëpp gis ko. feeñ na ba àddina bépp gis ko. te kenn du ko xam ci àddina kenn du ko xam ci àllaaxira. te kenn du ko xam ci àddina du ko xam ëllëg ci àllaaxira. boobu waaye nañu def ba xam ko. waaw kon nag boobu waaye ñun lu ñuy def ba xam ko. taalibe. taalibe. lay wut njëriñ. lay wut njëriñ. waaw njëriñ na wut dooleeku. su amee su amee njëriñ na wut lan lan. te ndol loolu amul dayo. te ndol amul dayo. wala li koy gën a yiir mooy jamonante mooy jamonante xeetante xeetante it luy war nit la dëkkante dëkkante itam luy war nit la bokk boole ci bokk ak bokk itam lu mën a ware la yàlla tere nag mu jur la war yàlla tere nag mu faf la jig nga ne may doomam wala ngay jigéen mu denc la wala ngay jigéen mu faf la denc ñooñu day góorgóorlu tigee tax ñu àgg ci wàll ñooñu ñoom góorgóorlu tigi mooy tax ñu mën a àgg ci wàll yi wowale eh sama baay la rek. da ngay judd rek. da ngay judd rek. ñu la tungoom. ñu di la tungoom. yow defe na ndax. yow nga defe na ndax. yow da ngay judd rek di sëriñ wala da ngay leneen. yow da ngaa judd rek di sëriñ mbaa ngay leneen. te fekk dara du la njëriñ nag lu may itam sukk tër bi yow li daal bay rek. te kat fekk booba dara du la jëriñ lu mooy nga sukk tër bi rek li taalibe yi. doom bu nekk taalibe. doom bu nekk taalibe. dafay am cër yu taalibe am. day xam cër bu daanu day xam. bu nekkee nekkee doom rek. bu nekkee doom rek nag. jaamur la. jaamur la. taalibe yaa ngay jëriñu. taalibe yaa ngay jëriñu kon. moom ñoo ko ber fa rek. moom ñu ber ko fa rek. mbokk noonu. mbokk it noonu. kuñ denc moom. kuñ noonu. moo doomu aadama joo xam ne. moo doomu aadama joo xam ne. lay lekk lekk. li ngay lekk moom lay lekk. li ngay naan li ngay naan moom lay naan. li ngay bëgg lay bëgg. li ngay bëgg moom lay bëgg. li ngay ragal lay ragal. li ngay ragal loolu lay ragal. ngay xopp muy xopp. ngay xopp muy xopp ni yow. ngay am di muy am ngay ñàkk muy ñàkk. ngay am di ñàkk moom it muy am di ñàkk. ñu ne la jeex na ci yàlla te ba léegi mètre ak genn wàll la dara wàññeeku. ñu ne la jeex na ci yàlla te ba léegi mètre ak genn wàll la dara wàññeeku ci moom.

loolu moo tax jëriñu dëgg jafe benn waaye mos na ñëw ci Cheikh Modou Xaafis benn waaye mos na ñëw ci Cheikh Modou Xaafis gannaaw ba mu dem gannaaw ba mu dem ne gis na lu ko neexut ci moom doyatu ko mu dem ne gis na lu ko neexut ci moom moom doyatu ko day dem ba ko ba Cheikh Modou Xaafis ne yàlla dëgg namut ci moom njëriñ Cheikh Modou Xaafis ne kooku yàlla namut ci moom njëriñ waaye Mawludou Fall mii waaye Mawludou Fall mii ci gisoon ci man su gisoon ci man. lépp luñ gën a sibit. a sibit. loolu du ko wàññi ci man. loolu du ko wàññi mukk ci man. xam na koy man. ndax moom xam na maay kan. mooy ñi nga xam ne yàlla jox na leen njëriñ yàlla nañu ca boole. mooy ñi nga xam ne yàlla jox na leen njëriñ yàlla nañu ca yàlla boole yaaram yi. diine ji yonent bi moo ko fi indi. diine ji yonent bi ko fi indi sallallahu alayhi wa sallam. alquran moo ko tëral. alquran moo ko tëral. yonent bi moo ko firi. yonent bi moo ko firi. fóode yi. fóode yi. seen wax. seen wax. lu ci lu ci firi alquran. lu ci firi alquran. wala mu bidal ne yonent firi alquran. wala mu bidal ne yonent firi alquran. loola man nangu naa ko. loola. bàyyi neen nangu na ko. lu fóode wax. lu fóode wax. mu weesu firi alquran ak firi wax yonent. mu weesu firi firi alquran ak firi wax yonent bi. waxi nit ka la rek bokkut ak sariyaatu dara. loola waxi nit ka la bokkut ak sariatu mooy li alquran tëral sariatu moo di li alquran tëral yonente bi firi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam firil ñu ko téere ko déyi téere ko déyi nag firil ñu yaar yi rek bañ dégg ko firil ñu yaar yooyu nag bañ mën koo dégg loolu la ñuy jëriñ loolu la ñuy jëriñ